waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Sénégal ñëpp maa ngi leen di ziar man baakan Seck maa ngi baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp aussi ah, d'abord sama nuyoo nag maa ngi nuyoo nuyoo boo xam ne maa ngi koy jël te jox ko presse bi yëpp parce que festival Fakki cette fois-ci presse bi ñoom ñoo xewle waaw parce que su ma nee presse bi ñoo xewle ndax ki ñuy rendre hommage muy sama papa élagement Hadj mbay donc euh, le 31 octobre fële ca Grand Théâtre defe naa def na lu ne ci Sénégal ci lu baax kër yu bari yu am yàqute fexe na ba defar ko mu nekk nit koo xam ne symbole la fii ñu dëkk ci Sénégal donc je pense que suma mag ab Ablaye sec di Dieye Baba wax na lépp euh, avant tout may féliciter sama sœur Viviane Chidid Ndour donc ñu ngi koy félicité bu baax raaya bi mu fi indi xam naa ne que sama mbokk yi tey fa lañ nekkoon ñu ci bari mais sant yàlla loolu mooy Sénégal Sénégal dafa baaxoo maanaam kuy liggéey rek nekk ci yoon bu baax rek ñu fësal ko donc de je pense que presse bi aussi kenn amul seen fay ñun mën nañ tëgg mu neex mën nañ créer mu neex waaye su ko nit ñi di ko consommer rek maanaam presse bi dañ cee am mention spéciale bon sama càmmeñ main gauche dama fee toog ak sama papa ak sama mag kii mooy Hilaire Saby bu Baaba Maal ay Wango ay Yinkile ay Delia ay Ndakaaru façon morceau jinne bu nekk defar na ko fii macha allah mais lépp ñu boole kook yar dal li ma naan ñun xale yi dañoo war a ànd ak dal xool ñii parce ñii ay symbole lañ ci musique donc Hilaire kontaan nañ ci sa teewaay fii tey ah beneen ki toog sama wet sama baay la duma ma ne sax papaay Matar Diop suba teel parce que moom kenn ñu ñu bari xamuñ ko ndax buggul sax écran waaye man sama baayu bopp la sama papa la mu nekk loo xam ne nag papa joo xam ne fierte la heure bu ma toogee chaque alxames Mauritanie gi mu ne damay jot ay ñaanam damay jot ay conseilam su duggsee dakaar balaa Matar di ko gis sax maa koy njëkk a gis Matar kon papa maa ngi lay ñaanal fan gudd ak wér ndax yaakaar naa ne que heure bi waroon na la fekk sax nga dellu Mauritanie mais yow lépp lu ma songu rek ci moralement ci conseil xalaat parce que yow yaa ñu jur li ma naan yaa ñu njaboote waaye nag nga nekk baay bu diiñ baay bu am fulla ak fayda moo tax tout le temps rek dama naan mataar soo xoolee ci sa papa rek kenn du la yem ndax yow baay bu baax nga bon beneen bi ci tegu mooy damay woote damay woote woote boo xam ne maa ngi tàllal loxo Sénégal yépp duma wax kii bàyyi kii bésu papa El Hadj Mansour Mbaye bésu Sénégal la bésu papa El Hadj Mansour mbësu askan wi la maanaam looloo tax dafa am sumay frère yoo xam ne dañoo tudd kàddu askan wi fële ca Kaolack muy ku mel ni aleloo mi toog ak ku mel ni Mathias donc ñooñu sumay frère lañ parce que man ku bëgg Kaolack rek di taxawu askan wi rek bëgg naa la beneen bi ci tegu suma rak suma xarit Babacar Ndiaye bi nga xam ne moom moo am xalaatu li nga xam ne moom laa donn muy peeg mees mu nekk benn association bu am doole boo xam ne on est presque plus de 4000 personnes 14 régions yi nekk Sénégal yëpp ba en Europe ñu jël ma def ma président bi donc loolu dama naan leen yéen wu diis la ndax soo jëlee 14 raison bi tey jii bi ñu demee barki démb Louga donc suñu première sortie à Louga donc ñu ànd ceeg sama papa ju baax jooju ba Badara Ndiaye Bekaay mbay def ko direct ñu déplacé woo gaa yëpp donc mu wóor na ne que mbooloo rek mooy doole maanaam looloo waral tey jii cinquième édition bi sama mag yi wax Ablaye Seck donc dina nekk loo xam ne ne que ci culture lu lu nit ñi mës a gis laay wax ci sama génération loolu lañ nar a teg parce que nit ku ci nekk da demee gëm-gëm parce que am na génération bu ñu fi fekkeelu tey ñi fi nekk nii maa ñoom ñoo bokk génération mais dama nekk benn nit boo xam ne ne que toujours ci culture dama war a wone loo xam ne ne que ku ci nekk rek ci sama génération war nañ cee mën a jàng parce que loolu la ma ñuy jàngal parce que 97 bi may joué Wembley donc xalaatuma woon ne loolu dina am mais ñii dañ maa may sens boobu baaba maan ma ànd kook sama mag yi am sensu 98 sama premier anniversaire boo xam ne moom laa feetee ci biti ma feete ko Miami ak yaayu Bob Marley yaayu Bob Marley toog ma toog donc doon rêvé loo xam ne ci sama àdduna donc loolu musuma koo noonu xalaat maanaam su ma naan musique dara mënatumaa gis dara lu ma jaaxal ci musique c'est parce que am naa benn expérience boo xam ne ci musique amatul amuma droit def erreur parce que àdduna soo ci nekkee am loo liggéey ci àdduna coow li di bari wax ji di bari gauche droite donc il faut nga nangoo yenu yenu bi nag mooy na nga fexe ba yow soo présencé rek nañ xam yow nit ki nga doon lan la li ma naan sama mbokk yi nekk ci presse bi nañ gën a góorgóorlu parce que àdduna yàlla rek a fi ne àdduna kenn nekk fi ku dul yàlla te ku ñaq rek jariñu ñun sabar yi lañ am maa ngi koy wax sànq Ablaye ma ne koy grand man su ma fàttalikoo sama jaar jaanu yaay sama papa dañ doon taw néeg bi di senn sama papa sama yaay dem uti paan pour taataanal son papa donc kon man dara mënu ma dépasser dara mënu ma parce que lépp ci gëm-gëm la rek parce que àdduna yàlla moo fi ne et ci biir loolu nag moo waral sama baay yi nga xam ne dama leen a fekk ci askanu ngéwél te askanu ngéwél mu nekk loo xam ne ni que géwél limal ma lan la géwél dul bokk ci animation benn mbir rek la mooy maanaam dëj te dëj sax géwél dina fa nekk pour wax lu baax maanaam perki yi rek moo fa dul nekk mais maanaam muy mitin muy ngénte muy taani biir muy loo loo mës di def pour mu am riir rek géwél yi ngay njëkk a woo ba ci buur donc kon ñun li ñu nekk dañ ko war a fonk kenn ku ci nekk li la yàlla jox muy sa métier nanga ko téye ak sa fukki loxo te xam ne xëcc bu daggul rek dina dikk àdduna nag dara jarul yàkkamti man Baaba Maal daf ma yar ci loolu àdduna dara jarul yàkkamti parce que loo xaar rek dina ñëw waaye bu di nga yàkkamti loo xam ne ne est-ce que mooy gën ci yow di nga gis diw mel nee rek nga ne attends foog ma mel ni moom est-ce que dina la jig donc je pense que ne ne que ñun li ñu war ci Sénégal ci culture mooy jàng ci suñu papa yi jàng ci sunu mag yi jàng ci sunu génération aussi tamit am luñ jàng ci ñun parce que tey jii sooy xool festival bi passé am na surprise yu bari yu amoon grand théâtre mais ren incha allahu rabi suñu yàlla mayee ak fekkee ren mooy raw ndax kiñ koy defal ndax kiñ ko defal bii passé son papa alaaj du Ndiaye Rose yàlla na ko yàlla xare àjjana ah te suuf oyof ci kawam ren ñu koy defal ku mel ni son papa El Hadj mbay moom buntu këram laa njëkk làng sabar te doomam moom ma mayoon fit boobu muy Cheikh Mbaye à l'époque temps yooyu kaarapit laay jël di débrouiller comme ñëpp et yàlla tey suñu yàlla mayee lii tey ñu am ne ñu xam ne ñun aar rek lañ am moo waral tey ma jël bés boobu ne sama papa El Hadj Mansour Mbaye sargal beneen bi ci teg ma jël ku mel ni sama mag papa Demba bi tey DG Senelec daaw moom lañ ko ne ren aussi ma pare ne ko pour quoi loolu c'est parce que ci waajur yi la ñoo dëkk Kaolack parce que des fois léeg-léeg nit wax ñu yaakaar poos la wala déet déedéet jikko la ak yar ak parents yi li ñu liyee liyee la ak sama yaay yaayam sama papa papaam soxnaam dafa am ay relation yoo xam ne maanaam yàlla moom moo ko def te relation yooyu su ko yàlla defee donc il faut dañ ko war di ko sauvegarder parce que àdduna dafa jeex ba pare mais nag nañ fexe ba dignité kenn ku ci nekk sa dignité na nga ko garder donc beneen bi ci tegu bugguma lim parce que su ma limee rek damay juum suma mag yi nekk ay ñoom a géey ñi nga xam ne Kaolack lañ dëkk ah ku mel ni ñoom mun Njaay Rahma ah euh, ku mel ni ñoom Baye Ciss ah Benzoloum ku mel ni Ousmane Nawel Dieng Ibrahima Ibou Bambara Ousmane Ndour Moussa Diama Mbaye ñooñu ay rakk lañ yoo xam ne ni que lépp lu ma song ñu dañ koy daal donc moo tax ren maa ngi woo askanu géwél yëpp le 31 octobre nag mooy mardi suba bi bu dellusee parce que mercredi c'est férié le premier donc moo tax ñu jàpp date boobu donc te suma papa élagement su may aussi mois de octobre bi ci la anniversaire man sama bésu anniversaire la ndax bés boobu laa judd muy le 31 octobre donc maa ngi ñaan Sénégal yëpp génn ñu ñëw Grand Théâtre àndandoor ak suma mag ak sama jumeau guddi gi nag comme li ko grand bi waxee rek Baba maa la koy tëgg ak orchestre daan leñool Pape Diouf sama jumeau sama xarit loolu mënul ñàkk ah. man dinaa jouer ak cent percussionniste association PECMES ñu am ci nag ay part de responsabilité yoo xam ne ne que maanaam dinañu wane yeneen facette yoo xam ne ne que peut-être Babacar dina ci gën a développé donc moo tax maa ngi jox rendez-vous ñëpp le 31 octobre fële ca Grand Théâtre di invité nag sama mbokk artistes yëpp bugguma lim ndax suma ma limee damay juum sama mbokk artistes yëpp baaba Maal nee na ak Pape Diouf ñu ngi invité ñëpp ñëpp ci biir mbir mi lañ bokk